dama leen di nuyu di leen ziar di leen dalal je suis docteur Serigne Modou Moussa Dieng docteur en économie islamique et coordinateur de la confédération internationale des familles religieuses may joxe sama suñu position en tant que coordination aujourd'hui ci agitation yi ñu fi dégg ay nit ñoo xam ne amuñu benn kersa amuñu benn benn bëgg ci réew mi jóg di théoriser ne Sénégal dafa nekk en crise kon dañu war rapporter élection yi parce que deux choses am nañ problème interne ci parti au pouvoir wala am ñu leen di corrompre wala kat candidat pouvoir bi am na problème ak pouvoir ñu bëgg utiliser loolu ne dañuy dàq élection yi ci lu benn raison ci loolu laay wax ni leen buñ lakk dëkk bi dëkk bi ñun ñëpp ñoo ko bokk buñ fi indi lu kenn xamul loolu mos fi xew li tax Sénégal mas na ci jàmm parce que dafa mas a respecter le calendrier républicain réew yëpp élection ko taal Sénégal mosul am boobu parce que ñi fi jiitu woon muy Senghor muy président Abdou Diouf muy président Abdoulaye Wade dañu amoon ngor ak quelle que soit situation ak quelle que soit leur position que ñoom dañuy organiser élection même bu ñu ko dee ñàkk ñu def ko di dem Macky Sall yi logique boobu la nekkoon ba tey déclaré ne moom du nekk élec du nekk candidat mu nekk lu lu gore lu noble lu rafet lu Sénégal yëpp rafetlu lu adduna bi yëpp rafetlu mu inscriraat Sénégal ci euh, vitrine démocratique bi mu nekkoon si Afrique ba ñëpp di ko roy mu def ay ajo aussi ci 31 décembre tàggatoo ne 2 février incha allah bu ñu ci àggee dina jox pouvoir bi son successeur kon bu demee ba ci biir am na ñu tekkiwul dara jóg animé par leur propre intérêt ak ñu leen di xam ba ci suuf di leen wax ne leen nañ théoriser report des élections pour que mu nekk opinion ñooñu dañ leen war a poursuivre pour trouble à l'ordre public ku ne xam na ne Amadou Ba bi fii incarné. continuité ce n'est pas un bon candidat continuité du lu baax Macky def na fi lu baax mais li mu fi def ci lu bon a ëpp su fekkee ne Amadou Ba moo fi continuer kii ku ne xam ne ne Amadou Ba baaxul mais Macky Sall ma ko tànn Amadou Ba baaxul guddi baaxul bëccëg mais nag dañ ko tànn kon ñu demee ba ci biir ba daanu ci seen propre jeu parce que fiche yëpp tur moo ci nekk on ne peut pas changer candidat loolu warul tax ñu dàq élection du dëgg du yoon nation sénégalaise moo ëpp solo diw wala diw wala ku mën doon te Karim Wade mon frère et ami certes il n'est pas candidat mais s'il ne pas candidat aussi le candidat républicain est plus important que Karim Wade est plus important qu'Idriss Seck est plus important qu'Ousmane Sonko est plus important qu'Amadou Ba on doit respecter le camp républicain pour que Sénégal na ci jàmm su fekkee ne crise bi ñuy wax du dëgg ñiy wax crise institution am na yëpp moom <coughs> ñëpp ñu ngi toog jaaxaan ci seen kawlal taal climatiseur ne Sénégal dafa am crise institutionnelle su ko amoon duñ ko tal de nañ xool réew yu amul jàmm ñoo ñam ca 24 heures kon dinañ xam ne loolu jàmm jàmm ko gën kon ñoom ñu toog di taal ak xam naan nañ dax élection yi parce que ñu ni ci jàmm rek kon nañ gàdd jàmm jooju nañ tenir élection yi à l'heure te xam ne raison bu tee ñu tenir élection yi amu fi parce que su fekkee ne dafa am ay magistrat yoo xam dañ leen tuuma tuuma ci la toll on est dans dans une étape d'accusation simplement accusation l'accusé est toujours innocent euh, ñu ngi ci tolluwaayu tuuma tuuma li fekk ab tribunal wéralu ko bañ daan ko définitivement tuuma rek la ñu tuumaal ay nit mais la responsabilité pénale est individuelle ñoo ñuy tuumaal ñoom dinañ tontu ci li leen tuumaal est-ce que tuumaal ñaari magistra daa tax ñu ne non dañuy dàq élection yi parce que conseil constitutionnel composé de sept sages am na ci deux sages yoo xam dañ leen tuumaal <coughs> dégg naa ñu neen ñuy tenté théoriser parce que Rose ne am na nee nañ xaw ma kuy Rose Wardini ci àddina am na nationalité leneen diw am na ko diw am na ko diw am na ko waa léegi et après conseil bi moom li mu waroon def mooy xool ci déclaration ci déclaration de bon fois yi ñu def xool na ko il n'est pas obligé mu dem seeti ba mu def des ko am recours ñëw ne ko non na xool comme ni def comme ni keneen def donc kon su diw amaatee feneen nationalité te moom ferme na période yi mu amoon recours ngir mu xoolaat ko ba mu tëj conse constitution bi dañ article que la décision du Conseil constitutionnel n'est pas susceptible d'une voie de recours c'est fini nañ dem élection te bàyyi caaxaan yi nañ respecter peuple sénégalais bi ñu tànn ku gañ xam ne yàgg gañ que le meilleur gagne on est 20 millions de personnes on se respecte bu am ay benn benn yu am intérêt pour report pour tegaat fi Macky Sall encore durée mu fi indi loolu mooy nekk vraie crise gestion parce que soo baat dañu am président bu légalul parce que Macky Sall à partir de avril légalatul légitimul parce que mandat ko fi bàyyi woon mandat bi jeex na épuisé na te moom nee na 2 avril dina joxe bu ñu ko jëlee ci loolu sûrement président Macky Sall bëggul loolu parce que amu ci intérêt li mu am mooy garder turam ci les plus grands dignes africains garder Sénégal aussi ci les plus grands dignes pays loolu mooy intérêt Macky Sall mooy international Sénégal sénégalais bépp ba mu des nag ay individus yoo xam ne ay dealers lañu dara la ñuy wut yàgg nañ ko def tante woon nañ ko temps Abdou Diouf a en profitant très rapidement félicité Abdoulaye Wade tante woon nañ ko temps Abdoulaye Wade ne ko noo defal nangam jàppal Macky Sall nañ def nangam président Abdoulaye Wade gaaw rapidement félicité Macky Sall toujours garder le Sénégal en tant que en tant que pays et en tant que nation je pense que Macky Sall def na ko aussi parce que bi muy déclaré du nekk candidat ñu bëri bëggoon nañ ko mais gis ngeen faru bu ko defee ñëw rek déclaré du ko parce que xam na këram la fa xew xam na këram lañ koy jéemal lañ bëggoon këram loolu lañ bëgg ba tey fermé na voie boobu ñu bëgg indiwaat beneen voie deux ans de gouvernement d'union nationale six mois pour pour pour maanaam pour organiser waat dañuy taal Sénégal te nañ ko moytu j'appelle le peuple sénégalais de leurs différentes causes d'y opposer de dire non d'y opposer une niet catégorique que les élections se tiennent à l'heure